jërë ngeen jëf mbokk internet Sport Life 221 dalee nag jàmm ñëw ak yéen ci xibaar tënk jëm ci wàllu làmb ak loolu yéen kay xëy fësal ci seen xel yu njëkk bokk na ci nag Boy Niang 2 mi nga xamante ni la mu def rafet na ba daal di yegg ci lool ndax drapeau Ama Baldé moom Boy Niang nag jàppale ne moo daal di dirigé rek li nga xam ne moo di délégation boobee moom Boy Niang kon ci geste boobee mu def rek dal di nay gagné estime bu doomu Pikine waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di acteur de la lutte. ndax nag moom fils de De Gaulle bile moo daal di représenté frère ja di Ama Baldé eh, ca gala bu Pape Sarr bi nga xam ne nag moom mi la lañu ko daal di eh, parrainé woon eh, moom Ama Baldé kon mi nga xam ne nag moo nekkoon parrain wu combat bi doon am niki samedi bile doxoon ci diggante Bébé Birahim bu écrit yoof ak Zal bambe bu écrit Baaw moom nag ndax kii di xaritam moo ko daal di rek di Pape daal di ko parrainé euh, bés bu nu mel ngir rendre ko hommage rek euh, waaye nag absence bu sell bu ndaw bi nga xam ne jamono jële mu ngi foofu ca euh, France ci INSEPS mu nekk ca Paris ngir waajal nag combat bi nga xam ne war na dox ci diggante mu Gris Bordeaux bu baax a baax a baax loole waral ba munta teew ci làmb jooje loole nag tax na ba kii nga xam ne moo di Boy Niang moo daal di diriger délégation boo mu mel nag ngir daal di ko teewal ca bés boobee ñu tudde woon ko bokk na ca kàddu yu mu di sax nee na Ama c'est mon frère noonu la ko moom mi di Boy Niang daal di xamle nee na nag euh, c'est normal que moom mi ne mu représenté ko euh, ndax dafa fekk ne rek ki la di Ama Baldé jamono jii disponible euh, teewul mënut teew ci combat bu nu mel ndax fi mu nekk contexte bi loolee c'est normal moom mi ne mu ñëw daal di ko représenté mu nekk nag un gest de haute portée. Euh, Pikinois mu nekk nag loo xam ne Pikine ñu ngi koy daal di saluer bu baax a baax rafetlu ko loolu nga xam ne moom doomu Dégol bi daal na ko def rek euh, dem teewal euh, frère ba Demba Baldé ci combat bu du mel nga xam dina ko ko tudde woon te moom mi la nag mënu ca woon a teew gannaaw rek douze minutes yoo xam ne daal nañu koy jano ci combat bu métti métti Zal Bambey nag daal di trompé bébé Ibrahim bu Pikine nag kon réussir na Euh, li nga xam ne moo di baptême du feu ci gannaaw bu mu organisé rek gala de lutte avec frappe boobee ni ki samedi bile euh, ci arène nationale mu nekk nag combat euh, phare de la journée bi doon opposé nag diggante Bébé Birahim bu écurie ak Zal bu babo bu Bawol moom mi nga xam ne nag kon Zal sax moo daal di am ndam ci combat boobee gannaaw douze minutes de confrontation yoo xam ne am na ko ak bile duel de mal classé ni ki démb nag euh, Jokal euh, moom sort des sacs euh, ba noppi sax renforcé ki nga enfonce ki nga xam ne moo di Madji Madji 2 jërë ngeen jëf mbokk kon li moo doon xibaare ci biir vidéo yenen rek ci yeneen vidéo la doon bu ci la àndee laata loolee woy leen di like di ci chaîne chaîne ku déggan ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan ka abonné activé sa cloche rek su ko defee nu dugal ci vidéo nga bokk suñu koy njëkk jot cant ak ngërëm ñeen leen jërë jëf